mu mel ni yëf yi dañ ko baral lool ba tax suñu naataango yi duppee ko mode fast track ndax dogal bi njiitu réew mi jël jarale ko ci ministère de l'intérieur jébbal nañ ko maanaam notifié nañ ko kii di Birame Souleye Diop ba tax Babacar Diop di maire bu Thiès jàpp ni lii moom lu ñaaw la te lu muy gàkkal ci deru réew mi ba ci ëllëgëm ci wàllu wàllub histoire loolee nekkul lu rafet ci réew mi li am ba am mooy waa Pastef ñoom ci seen wàllu bopp gëmuñu ni parti bi ci boppam nañ ko wala sax mënees nañ koo def Mayab Mbaye mi nga xamante ne mooy coordonnateur magi Pastef dafa jàpp ni projet bi ci boppam ba léegi mu ngi ci xolu nit ñi Sonko mi des ci xolu ndaw ñi ba tey rawatina ca Sikicoor moo tax ñoom it xeex bi delloo guñ ci ginnaaw ba léegi tar na lool ca diwaan ba jàmmarloo yi ak takk der yi ba tax 24 heures duñu xamal ni ab ndaw bu toll ci ñaar fukki ak juróom ab bal pistolet lañu ko daal di dóor mu ñàkk bakkanam Juan Branco boo moytul dina ñàkk xeex bi nga xamante ne soobu na ko état bu Sénégal Vox Populi di xam ne ni ba léegi ñu ngi ci warum avocat Ousmane Sonko bi te képp ku ñu jàpp ni kon jege nga ko ko wala bokk di ko jéem a làkk dañu lay teg loxo kaay bi di xam ne ni gannaaw benn Taleb Sow avocat bi di maître Babacar Ndiaye ni ki démb mujj nañ koo teg loxo yi tamit fexe ba teg loxo Juan Branco libération dañu xamal ni kon démb ay éléments yu GIGN nag daal dinañuy wàcc ci kër ki nga xamante ne mooy maire bu Sangalkam teg ci loxo kenn ci avocat Ousmane Sonko waaye yéenekaay bi lim ñuy xamal mooy avocat français bi nga xamante ne dugg na ci Sénégal ci anam yu nga xamante ne jaaxal na ñu bëri jamono ji dafa mel ni ku jóge ci réew mi ci boppam maître Babacar Ndiaye mi nga xamante ne sûreté urbaine da koo teg loxo ci jamono yi nga xamante ne mu ngi doon jéem a génn ci brigade de bu Kër Massar ndax foofee la doon assister kenn ci ay client di Pape Sow mi ñu denc ca garda bi libération dikkaat na sax ci perquisition bi xew ci hôtel étoile bu Lac Rose waaye fekk ñu fa kii di Juan Branco ñu fekk ci xët bu njëkk Sud Quotidien nataalub Khalifa Sall ak Karim Wade yéenekaay bi di xam le ni kon lu jëm ci examen projet de loi bi nga xamante ne moo war a indi ay coppite ci code électoral bi tey ji lay xewee ca pencum ndaw réew ma moo tax yéenekaay groupe Sud Communication bi di xam le ni kon moom Khalifa ak Karim ji ñu ngay déglu rek ñii di leer ba xam dinañu mën a bokk ci élection présidentielle bi am déet ci biir yéenekaay bi ñu dénk kàddu Jibril Ñinga xam-xamam màcc ci wàllub élection mu gis ni lu jëm ci principe bi moom dafa jàpp ni du mën a amaat fii ak élection présidentielle ab révision liste électorale donte assemblée national tey ji mën na soppi li nga xamante ne moom mooy code électoral bi ci boppam assemblée national ab bërëb la bi nga xamante ne règlement de compte képp lana fay liggante L'As Quotidien moo ni jàngatee li ko waral yéenekaay bi dañu fàttali ni Khalifa Sall mi nga xamante tey ji lañ ko fa war a liggante ci biir assemblée googe fa la jaaroon ba destitué ki nga xamante mooy njiitu mi Macky Sall atum 2008 bi di fàttali tamit crise bi xewoon ci atum te nga xamante ne assemblée lañu ko jaarale bis bi doon jaar yaraax ñu daal koy sànni ab cocktail molotov docteur Abdourahmane Diouf daal dina ci addu ci biir 24 moom candidat déclaré bi ci élection présidentielle bi ñu dëgmal dafa Diouf ba tey ci biir bis bi la jour jàpp ni li xew ci yarax moom ak bis bi mën nañ ko méngale ab attentat terroriste ci waxtaan wu yaaw wi mu sekk ak yéenekaay bi moom docteur Abdourahmane Diouf daal dinay addu ci ponk yu bëri wax na sax ci li ñu tas parti Pastef mu jàpp ni kon mbiru jaay doole képp la li mu yàkkul sa Seck mi mu àndaloon ci wàllu politique daanaka da ko fàtte moom docteur Diouf jàpp ni ndaamal kajoor ci boppam jamono ji gàcce moo ko war a topp warul sax feeñ ci kanamu sénégalais ndax taxawaay wi nga xamante ne mu ngi koy am ci wàllu politique mu jaaxal askan wi njiital parti awale nga xamante ne candidat la wax na yi tamit ci li nga xamante ne moo jëm ci programme am jëmale ko ci askan wi bi bu jotee réew mi ñeneen ñi bëgg jot réew mi te ba tey déggoo amagul seen biir muy candidat yu parti APR xëccoo bi mu mel ni gën naa takarnase l'observateur dikkaat sax ci candidat yooyee nga xamante ne am na coow li ci juddu ndax yenn saay mu am ñi àndul ak candidat yi nga xamante ne dañoo jàpp ni seen dugg ci APR yàggul dara ñeneen ñi gis ni kon mbirëb mbokkoo mu ngi ci biir te loolu duñu ko nangu yéene kaay groupe Futur Média bi di xam ne ni xamante ne dina bëri lool njeexital ci parti bi njeexital yi mën naa tax ba xajaloo sax daal di am diggante responsable yi ci seen wàllu bopp responsable yi bokk na ci Mame Boye Diao mi nga xamante ne tamit candidat la direct news di ñu xamal ni boo moytul moom Mame Boye Diao moo war a jaxase carte gi ci boppam kii jaxase kay carte gi ba noppi source a di ñu xamal ni mooy Mansour Faye yéenekaay bi di kat ci kaddu yi nga xamante ne goro njiitu réew ci boppam yëkkati ko keroog ba mu duggee ca fekk leen ci ab ndaje bi nga xamante ne li ko sababoon mooy fexe ba am candidat ngir coalition coalition Benno Bokk Yaakaar ci kàddu yu mu yëkkati nag bokk na ci ŋàññe taxawaayub Amadou Ba ak i ñoñom ñi bëgg a jàpp ni candidature bu Mame Diop yëfu mbokk la loole mu di ko ŋàññ di wax ni njiitu réew mi ci boppam moo war a jël ay responsabilité am ndaw yi woy di jël ay gaal wutali réewub tugal jaarale ko ci mbëkk mi libération di xam na ni kon amatina yeneen jëye yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci yoonu barsa bi ndax ñett ci ay gaal bawoo ci Sénégal fu ci mel ni kon Fass Boy Mbour ak diwaanub Saint-Louis mujj nañoo Dakhla yi yéenekaay bi di xam ne ni am na ci ñaari ndaw yu ñàkk seen bakkan ñeneen tollu ci ñaar fukk jëlee ci ay gaañu gaañu yeneen ndaw des ci réew mi di fi daane seen doole mooy ñi yëngatu rawatina ci wàllu njaayub ndaamaraas gi Le Quotidien Le Quotidien def ci ab gëstu bu yaa di wax ci business bi nga xamante ne daanaka mu ngay dox bu baax a baax ndax ndaw yi ciy yëngu bëri nañu lool ñuy xam ne ni tamit centre de stockage yi tàmbale naa yokk ci réew mi waaye ci wàllub commerce boobee nag ñi ciy gën a yëngu bokk na ci ay indien basketball tey jii ñu ngay yootu fukk ak ñaareelu raaya stade quotidien di dikkaat ci final bi nga xamante ne moom la ñuy xaar niki tey jii diggante Nigéria ak Sénégal ñeel basket jigéen ñi yéenekaay bi di xam ne ni final la muy wane ni Sénégal jege na lool raaya gi waaye sori na ko yi tamit ndax ki muy dajal Nigéria mi nga xamante ne du ñeexum ñebe ndax li mu tegle ni ñetti titre champion d'Afrique titre roi des arènes mi nga xamante ne Modou Lo moo ko yor jamono ji lu koy xaar métti na lool sunu làmb di wax ni moom mbaru Parcelles Assainies bi jamono ji